jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di kontaan ci yéen ci safoo bi ngeen ñu safoo bëgg nañ ci yéen di leen wax na nag tey ñoo ngi ci émission moom bu mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo su mu nee jàmmaarloo xel yi dem ci mbër yi su nee jàmmaarloo xel yi dem ci supporter yi su mu nee jàmmaarloo xel yi dem ci amateur yi nga xamante ni ñooy seetaan làmb waaye mbokk yi tey dama dalal ñaar ñoo xamante ni nii ay mbër lañ dañoo woon bëri la 14 août bi passé waaye corona bee tax làmb ju mujj ta am sama gos maa ngi am ki nga xamante ni mooy Sibar borom Kër Massar borom Malika borom Boun borom Yëmbal sama droite maa ngi am ki nga xamante ni mooy Alliance Baldé doomu Pikine bi Alliance nuyu naa la. waaw salaamaaleykum mbooloo mi gannaaw ba ma sant yàlla julli si yeneen bi maa naan jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di nuyu waa wasaare bu baax di ziar plateau bi yëpp di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàlla ci barke Seydina Mohamed mu demee noonu non question calme sax dañuy nuyoo rek ñu nuyoogum en na xam nga ne xale bu bi sant Balde da dëkk Pikine bu waxee mu neex bu baree mu neex moom moo toog nii de. Hmm. Sibor nuyu naa la. waaye maa leen fay. ñu la jaajëfal bu baax a baax ci ñëw bi nga ñëw fi bii wasaare. waaw ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi sant samay ñaari waajur di sant sama koñ bi ma bàyyee ko muy waa jaxaay di leen nuyu di nuyu waa wasaare ñëpp. xool caméra di nuyu waa wasaare ñëpp. di bëggee ñëpp waaw. mais tey nga ñëw biir wasaare defe naa c'est la première fois. waaw c'est la première fois mu ñëw biir wasaare. tey mbokk yi gis ngeen ñaar ñi laa dalal pour ñu war a jàmmaarloo ñoom ñaa ndax mbokk yi ñoom ñaar dañoo woon bëri le 14 août bi nga xamante ni moo passé waaye comme que corona bay ñëw puus na lépp lu mënul ñàkk faw moom am tey nag dama bëgg a dalal ak ñoom bëgg waxtaan ak ñoom ndax ñoom ñaar ñi bokk nañ ci ñi nga xamante ni jeune association des lutteurs bi ñuy wax bu bees bi ndax am na benn boo xamante ni am na bu mooy bi Gris Bordeaux am na beneen bi nga xamante ni tamit Kona moo ko jiite ñoom mobile ñoom agogo ah euh, bari na ci ay xale mais ñoom ñi ba ki démb dañoo jékki-jékki gis nañu ne am na beneen association boo xam te ne na te làmb defe naa ne warul am ay association yu bari yoo xam te kii day jiite jëm gauche kii jiite jëm droite ku ci nekk di woote jeune leader te defe naa ne ñoom ñëpp ay mbër yu ndaw lañ loolu yëpp bëgg nañ ci développé bëgg a développé ci seen combat bi nga xamante ni jot naa taxaw ndax ñaar ñi ma mbokk yi ma dalal tey dina neex dina yëngu déggal caméra bi Sibor yaa moom daa tàng euh, Alliance Baldé lan moo waral sa diggante yow ak Sibor. waaw sama diggante ak Sibor amaana du woon làmb boo xam ne sax jaar na parce que bu dee si làmb maa ko pay victoire bu dee si làmb maa ko pay combat mais nag liñ naan lu war a am day am suñu làmb bu waroon taxaw la. ñu woo ma ma waxtaante ak promoteur boobu fekk maa ngi ñaari avance jàmbur <laughs> mu juróon ay coow. yow nag da bëgg di teg lay avance de. léegi nag ma ne mieux ma jël ko ma xam ne ñun ay xale lañ rek war ñu fay nekk di taamu ma jël ko pour bëre la 14. mais la moo tax nga raw ko ci làmb ëpp ko ay combat ëpp ko ay victoire ba noppi nangu koo jël. no parce que làmb du loolu bu ñu fi nekkee di wax dañuy yóotu ci kaw te ñi ci kaw bëgguñu bëre ñun dañuy yàgg ci yoon bi nañ bëri ak suñuy morom comme ñun ay xale ñun ñëpp. man góoma borom dix combat ak borom deux combat ku ma war a bëreel damay bëre ak yow. yaa wax promoteur bi mu dox sa combat yow ak moom wala promoteur bi la ko proposé. musuma koo wax Sibor moo def benn interview ma seetaan ko mu ne bëgg na bëre ak man ma dugg ci commentaire am am lu ma commentaire mu jël sama numéro enregistré ko. message loo ko wax non loolu du waxu du waxu quoi parce que bind la rek rafetul nag mais affaire mbër la. mu def émission nga dugg commenté ci loo xam te ne rafetul. waaw li mu wax moo la neexul. non li mu wax moo amul woon. moo tax mu tondoo ko loolu ci commentaire bi mu la wooyee lu mu la wax. non daf ma message ne mu mbër waroo waxee noonu affaire yooyu noonu man tamit ma xam ne waruma waxee noonu. nga nangu li ma wax waaw après bi ma promoteur bi wooyee ma ne ko yaa ko neex bi may woo mu ngi Gàmbi man promoteur bi mu ngi Gàmbi man maa ngi Gàmbi. Mhm. ngeen waxtaan déggoo. ñu waxtaan déggoo waaw. suba lan moo dugg ci alliance Baldé. avant kii day xanju. na wax wax ji bàyyi li muy def. waaw léegi wax ma moom lan laa la wax bi mu la commenté. xam nga nee na defuma dara dëgg la defuma dara de mais moom bu ma jëlul woon am na booy taxaw pour bëreeg man Ouzin man damaa yokk benn at pour mën a dugg ci làmb lu mbër musul def ci arène dama yokk benn at pour mën a dugg xam nga ñoom dañuy waañ at dugg man dama yokk benn at pour mën a dugg ci làmb sama premier combat lu mbër musul def laa def ci làmb muy lan ñu jox ma ko am trois victoire kat dëgg dama ñëw xeexa moom trois fois laa ko yóbbu ardo xeexa moom ba làmb ji jeex amul mbër bu ndaw bu ko mus a def moom man maa ko cherché man maa ko laaj ba mu jël ma li tax mu jël ma nag am na lu tax. ndax jox nañ ko 3 boy mu rejeté 3 boy yooyu. lu tax mu jox nañ ko 3 boy mu rejeté mu ne bëggul 3 boy yooyu noonu bëreeg si boor la kon kii ni ma ko bëggee moom it noonu la ma bëggee. léegi yow lan moo tax nga ne promoteur bi na seet daan ko parce que su ma ko dumaa daan ko am na feneen fu may yóbbu dafa may yóbbu ci ñii. mën ngaa duma kii daan ko. barke Seexul Xadim ci sama gëm-gëm nag quoi waatuma nii loolooy am sama gëm-gëm mun naa koo dóor mun naa koo daan doole yi bokkul xale laa yàpp doole alliance Baldé. ci lima ma foog. ku dàq bëre. ci li ma foog man la. këpp gàllaaj. loolu bàyyi naa ko ci si loxoy suñu borom. ndax gàllaaj moom ñoom dañuy jàppale ne gàllaaj dem sëriñ la ak gàllaaj ñaanu waajur la. te boobu sax gëm naa ni maa ko ëppale xasuma ko nag. alliance. alliance da nga absenté. dama koy déglu mu xam nga su ne moom daa def première combat dóor nit mu dem génn dem arro yooyu man trois kaw laa am. Ah, loolu de na trois dóor mu daanu. kon xam nga ne ay afu affaire xeex du ma ci concurrent ak moom. moo tax ma jël ko trois kaw am yooyu moo tax ma jël ko. def def di def formation. ñaari xeex kat daje te bu ñëwee du xeex xam nga ne man nekkul xeex laay jàng waa leneen laay jàng ba xeex man mu munew ma sax ay coow wax bu bëri. ci boor bu arbitre non mais nag mais nag coow kat la waxkat la de day coow wax moom da nga koy def mënu fee ñëw naan day def muuma ah, coow kat la da ngay coow waxal la quatorze lañu waroon bëre comme amuñu date mhm. combat bi mënuguma cee sori xamal tax mënuma cee sori bu dee bëre ma non mais mais mais di nga ci wax parce que yow sa diggante yow ak yi wax dong moo la fi andi ñëw leen fi di lewaatoo ñëw leen fi di dóorante barki sëñ Bamba xel yow kii jël man xam nga ka lay xalaat fi mu toll nii. ñu ma génnee si combat bi ba jàpp mobile 2 duma ko. <laughs> loolu dinaa ci ñëw bul bul bul bul bul kii bi question yi. non defal ndànk defal ndànk mobile moom dinañ ci ñëw mobile li nga ko yàq yëpp démb. Eh, xaw ma fan nga non defal ndànk defal ndànk mobile dinañ ci ñëw. mais damaa xam ne kii dem ci promoteur bi ne ko alliance bale laa bëgg a dajal ah nga ëpp ko combat ëpp victoire nangu koo jël mu ñëw na taxaw moo la ëpp doole moo daaka xeex dalay duma moo la ëpp ñaani waajur nga taxaw di wax ay wax mobile waaw man bu nee moom ëpp ñaanu waajur dafay wax xalaatam man suma yaay rek laa am moom kese laa am aw ma keneen kon yooyu du ay détails fii toog fii ay ñaari waajur gis nga ki am ñaanu waajur suñu borom rek moo ko xam te suñu borom suñu borom. ba tey waxuma lool de Ouzin ba tey dama ne ko non non non da ngay mais da wax lu ma waxut moom du ma wax lu ma waxut de. <laughs> dama ne Ouzin moo ne ma moo ne ma ku bëre. ma ko yaakaar naa man la mu ne ma ku ëpp doole ma ne ko man la mu ne ku ëpp gàllaaj ma ne ko ah gàllaaj de ñoom li ñu jàpp moom mooy gàllaaj hmm. loolu du gàllaaj ñaanu waajur moom bi njëkk te gëm naa ni man am naa ko waxuma maa maalo ko ëppalee du ma la ah, xas de. nii après dañ ko seetaan waa léegi comme yaa ma ko ëppalee ak ëppalee ma ko lépp yàlla xam na yàlla rek moo sañ luy dee mu génn ci luy dund hmm. kon yàlla rek moo sañ li ci des hmm. ay détail la wallaahi su sama tànk gi ginnaaw arrière yàlla na ma daan jour combat doo ko teggil sama benn tànk bu demee si ginnaaw yàlla na ma daan. kon de dégg naa ko dégg naa ko kon de ndam li gën la yomb samay combat xam ne damay damay xare badar laay day mamu di ñëw man duma xaar. <laughs> te bëre njool ak ndaama la. kan mooy dama koy gën a yombalaat rek bëre njool ak ndaama la boo xoolee de xam nga njool mii xam nga ndaama li bëre njool ak ndaama la te day mamu di ñëw te man du ma taxaw. man duma ma arrière du ma du damay taxaw fi ma taxaw moom day mamu ñëw bu ñëwee dina am lu mu fi fekk nag. yàlla na yàlla na yàlla na dëggal boppam ñu xeex am na am na ñu ko fi waxoon dañoo yooru. billaay wallaay du xeex lu sax kuy xeex si. xam nga làmb moom moo wax la benn affaire nit mun na taxa fi ne damay xeex mun na taxaw fi ne damay bëri mais jour géew ga lépp lu koy yombal pour mu am ndam loolu lay def. waaw ah, moo tax te lépp lu may yombal pour ma am ndam rek lool laay def bu mu ñëwee war la war la dóor nga wàcc dama lay dóor nga. kon yow xalam waaw kon doo xeex de. Eh. déggoo ma xanaa mais bëgg lu yomb moo tax ngay dem entraîné ji pour am doole nga ñëw yàlla gën la yombalal waaw non boo nee lu yomb laay wër lu yomb kay. non non maanaam dama ne la ci biir géew ga nu sama victoire gënee yomb laay wër. su ma xamee ni kii bërëb dama koy dóor mu wàcc dama koy dóor mu wàcc. mu yomb mel ni kii xeex bi mu wax. day dëggal boppam moo nga kuy kuy bëre kuy bëre ñaari temps ba mu jeex tàkk. kii amut entraînement mais est-ce que laajoo kii nga ñëw ba gis ko commencé di am loo ciy jiixi jaara. <laughs> barke Cheikhul Khadim. billaay wallaay wa taalaay sama combat moom bu yàqoo mun naa fa sax jaaree bàyyi làmb ndax amuur ak bëreeg moom bi ma am man quoi. waa non waaw léegi loolu damay dégg nga di ko wax. dangaa gis si moom benn nooy neex. wala da nga gis non non non non non. lan moo doon nga bëgg a bëreeg moom. ku kii ku jël dund euh, kaawa ko. Sa Thiès ak keneen. di nga jàpp ni kii nooy neex la jàppee wu ko nooy neex la de. non dama dégg te bëgguma bëreeg ci làmb ji nooy neex barke alxuraan. c'est que jàppul na nooy neex daay jàpp ne mooy gën a yomb xam nga làmb ji lépp dafa metti lu yomb amatul hmm. ku bëgg lu yomb da ngay tëdd seen kër dox say business wala ngay xarmat toog jaaxaan teg sa lu seet di naan mais loolu amul si làmb ji lu métti moo fi am booy ndaw yëpp dañoo bëgg comme ni gars yi bëgg lañ bëgg bëgg nañ tukki bëgg nañ dimbali seen waajur te ci làmb lañ ko yaakaar. comme lu yomb amatul mais mais bi fi mu toll nii bu nekkoon moment bi dañ wax weesu na. Mhm. fan ngeen tolloon ci entraînement ci wàccaay. man de wallaahi pare woon naa parce que def naa si combat bi deux millions deux cent quatre vingt mille barki alxuraanu karim. ci sa diggante ak si bopp billaay millions. ba may ñëw signature moom leer na ko oto lañ ma may maa moom ñoo daje signature ba. oto mi ngi sama gaale. man lamb jeexawoon na. moom non non jaay mu ngi si oto mais tax naa si avant de quoi. <laughs> xam nga booy wax da ngay wax sa diggante yàlla. kon lamb xam nga kii xam nga kii kii ku war a ragal yàlla mi ngi nii. Ah, kii ku a mi ngi nii kii bu la nee làmbam def na ci deux cent deux millions quatre cent et quatre vingt mille et quelque. xam nga ne xam ngeen ni yenoo maanaa waaye bul waat barki sëriñ bamba wasaare day wàcc léegi immeuble bi wàcc bu mu fi waataat bu mu waat barke alxuraan bu mu waat gis nga kii ah, ah yàlla c'est c'est un frère nag sama waay la bu bu jee bu jàllee sama gaañ la te billaahi xoolal xoolal non non déedéet deux millions day xaalis waaye kii maa ko ëpp jàppale kii man li may téye xaalis par jour du ko téye barke Seexul Xadim kii maa ko ëpp jàppale foofu kii maa ëpp xaalis foofu ëpp ñi ñi tafu sama côté yor ay millionnaire day fanaan sama kër sama kër man kese maa dëkk sama kër jaakaarloog sama yaay non du ma dal sa waat nga war a bàyyi waaye wax leen waaye kii bu ne dem na ci deux millions quatre cent et quatre-vingt mille xam non déglu ma rek nit ku ne am na ni muy dóoree mais non nit non man damay dóor ñi fi toog ñëpp dañuy dóor nit ku ne am na ni muy dóoree mais ni ngay dóoree dafa ëpp bul waat barke alxuraan bul boo waatee fii boo waataatee ñuy bul waat de. barke sëñ Bamba naa si deux millions nañ xeex c'est que bu leen àtte billaahi boo waataatee ñu xeex. waaye bul waat waaye yow. <laughs> mais kii toog di waat ngeen koy dëggal nii. waaw noonu defal bu nee quatre sax ma xaw ko gëm tuuti nii. man quatre cent deux kii bu amoon deux millions quatre cent vingt mille heure bi mi ngi Paris. alliance xanaa demat soo dem. xamoo lu yem si dëkk bi. barke Seydou Naamou Mohamed xanaa demat. mais yéen doo leen wax ak kii gars yi ngir yàlla moom dëkkul si dëkk bi mais yéen doo leen wax ak kii si dëkk bi mais doo leen wax a kii waaw laajal ñu dëkk si dëkk bi bëgg a xam mooy da ngaa yëgul sa bopp mystique bu la jàpp wala xam nga moom xam nga moom benn côté dañoo xaw a yem jikko man ak moom mais moom ni mu koy dégager du noonu moom ni muy cherché pour nit ñi pour nit ñi wuy si ko mbala ni muy cherché pour nit ñi xam ko xam nañ ko mais ni muy cherché pour nit ñi wuy si ko mbala pour nit ñi gën xam du noonu bu ci dugal suñu borom non am na nooy dóoree na dóor bi jaar yoon rek dóoru nante barke alxuraan maa la ëpp ay nit kii waay yow kii bàyyi ma waay Souleymane Ndéné Ndiaye maay képp doomam nga naan ma kër wër foo ne kii fu ne kii fa la ne moo eh si boor ngay waxal borom dëkk bi waxal rek barke Sëriñ Bamba may borom dëkk bi billaay wallaay wa taala baax li may jot xaalis par semaine di jaar sama loxo bii un nga koy jot mais da nga ma tàngal quoi boo toogee fii di war naan def nga ci deux millions quatre cent et quatre-vingts te man bi combat bi desee presque quatorze jours maa ngi dëkk ba di def dan samay dernier réglage barke ba billaay wallaay fa la ma fekk fa lañ ma woo téléphone ne ma affaire yi de annulé nañ ko bi may ñibbisi bi may li may ci télé laay waxee la ma yóbboon yëpp ay nag ak ay xar ak yooyu yëpp laa jënd indi kii xooluma ko kii du man ak moom mais booy chercher buzz ma la di pour nit ñi ñëw wuyu si la mbar pour leneen dafa am noo koy demee mais doo waat. mbër yi waat mbër yi daan làmb yëpp tardé nañ. lu may wax. kii da bàyyi si non non mais bul waat dama wax ci mais bul waat. mais yow li ngay wax dama ko dama ko mere ñëwaguñu foofu nag. dama ko mere affaire ngay dégg moo la tiital man sama gaayen la sama réel bro la te buñ bëree dañ koy lonkoo sama waay la am na tuuti as tuuti bu bu bu juróom mën ak yow gaañ mënu dox diggante man ak yow gaañ moom mënu ko fi gaañ dëmm diggante man ah, ah, ah, lu ñu seex foofu gaañ mënu fa am parce que bu arbitre soufflé da nga ma moom si loolu bu lamb ji jeexee nag après leneen après mais ma si def moom suma xaalis la barke Serigne Bamba bu wat gaañ ngir yàlla barke Serigne Saliou suma non non bu mu ma ko ci deful yàlla nga ma daan Ah, amin yàlla yàlla nangu naan <laughs> yàlla yaa may dégg yàlla na nga nangu ñaan lii mu ñaan bu dee def na ci deux millions quatre cent quatre-vingt yàlla naa la daan yàlla na ma daan su fekkee defu ma ko ci yàlla na ma daan jeex na loolu barke Sëriñ Bamba nangu naa ko jeex na léegi kay fekk raay na soixante quinze mille <laughs> waaye ngi dama koo xam ne bordo bi ma ko xam bu baax barke Seydina Mouhamed mi ko dee neex rek defu ci fukki junni juróom defu ko ci waaw léegi su ma jógee ci loolu am na benn entre parenthèse boo xamante nii fan ngeen teg yéen yéen yéen ñaar laay parce que yéen ñi ci ñi jiite jeune leader boobu ci ngeen bokk fan ngeen teg ne boo Bordeaux ñu fal ko les jeune leaders wala boog li ñi ñi mbër yi nekk Sénégal mooy seen président ñu jékki-jékki gis ñoom mobile ñoom Kona euh, ñoom ñoom boo yu bëri génn def les jeunes leaders association nit ñi di kaas noppeeguñu yéen ki dem ngeen ne da ngeen ubbi seen association les jeunes leaders di xëcc ñee fee di xëcc ñii fii. bëgg andi ay ay ay concurrent fan ngeen teg loolu ak yéen ban ban fan ngeen ban ban audace ngeen am di bi ay jeunes man loolu laa bëgg a xam. ci yéen waaw foofu nag foofu foofu may njëkk a wax. yéen ci foofu nag dama voilà foofu nag dama may ma wax. ñaareel ba de déglu ma rek ñaareel ba mooy dégg naa am na promoteur bu nekk seen gannaaw financé leen yéen pour ngeen dal yéen mbër yi ñaari question yi bëgg naa ngeen ñëwul ma ci. foofu man maay njëkk a wax. maa ngi nuyu euh, jeune leader yooyu noonu ñooñu nga tudd na mooy ñoom mobile ak ñeneen ñoom di ñuy ñoom Gris Bordeaux dama fa dama fa dégg lu ma naqari ñu ne Gris Bordeaux ak jamay Jamaïcain mooy promoteur bi ngay wax. daf ñoo jox xaalis pour ñu contre ñoom mobile ak yooyu. xaalis fi ñu fekk fa la ñuy bàyyi benn man maa njëkk a kaas li ma li ma metti man association jeune leader lañ ma dugaloon bi ñu ma fa dugalee man ma aalu wax li ma metti quoi ne leen kat bon association jeune ngeen wax mobile mooy président ngeen wax. Kona kenn xamatu ko ci làmb on le foot 2015 2016 Siteu la doon tëkku Siteu dem na yoonam bàyyi ko fi agogo ci bàyyi làmb la la la gën a jege comprendre nga. te association bi ni bu fekkoon mobile daa jiite nga jël ku mel ni caatu Rebeuss mu topp ci. nekk comme vice président bala nga jël sekk ndaanaan mu nekk trésorier keneen ak keneen non boobaa ñun dinañ ñoo topp seen ginnaaw moo bari mobile euh, ñoo topp seen ginnaaw keneen ak keneen ñun nag ñu booloo créé suñu bopp bi ma ko waxee ci biir groupe bi ñoom ñëpp ñu tontu ma gisu gisuma lu ma arrangé ma quitté parce que man bu ma gisee mbooloo taxaw am lu ma fa métti mbooloo mi yëpp laay ma woo kenn téléphone du ma jël kenn ci suuf comprendre nga bi ma fa tontoo gisuma lu ma arrangé ma génn bi ma génnee ma téye sama self deux jours mais est-ce que groupe bi yow war nga cee xool yow li la arrangé yow kese non non li ma metti man moo metti ñu bari bi ma fa jugee deux jours bëri da woo ma ne ma ah ñun kat est-ce que jamaïcain woo na la ma ne ko non mu ne ma ñun kat war a taxaw kan moo la woo mu ne ma dañoo war a taxawal benn association jeune leader dugg na fii jaar na fii ak yooyu ma ne ko xanaa gars yi dañ di wax dëgg la jamaïcain moo ko fondé. déedéet jamaïcain fondé wu ñun mu ànd dooleeg si ñun. mais comme tey jii nii ñun ñu fondé promoteur la. promoteur la. la. ci ñun mbëri ndaw yi du mbër non non promoteur la promoteur xale la. booy bu ndaw la nekk promoteur di màgg dem ba nii ñun nag ay xale ndaw la ñoo war a màgg tey suba dekk mbëri mag di wax rek booy ndaw yi. seen combat bi moo tax ngeen jël ko bëgg ko cee dugal ci biir. waaw ne leen promoteurs yi ay billets la ñuy jox man Jamaye Gaye dafa maa fay xaalis de dafa ma fay xaalis bu weex tàll pour ma bëreel ko comprendre di lancer benn message nag di wax booy ndaw yi nii grand frère yi ni ñu leen di ni ñu di manipuler nii pour yàq seen der def na ko dul noonu nañ sóoraale bu baax. mais léegi yéen bi Balla Gaye bi ñuy xas. Oh. Balla li mu sëgg ak ay rakam ak ay ñeneen ak ñeneen écurie mi ngi koy def Gris Bordeaux li mu sëgg ak booy faase ak ay rakam ak ñeneen ñeneen mi ngi koy def Modou Lo noonu Eumeu Sène noonu Ama Baldé noonu comprendre nga promoteurs yi mag yi muy Fallou Ndiaye ak Jamaïcain ak ñooñu noonu am nañ seen i booy jeunes leaders yoo xam ne seen i lañ seen doom lañ dañ leen di fay xaalis ba may leen ñu bëri leen bu leen kenn jaxase kenn ñun jeunes leaders yi nag ñun ñooy daj ci làmb lu kenn dul daj ñun ñoo fiy jënd fu mbër bu mag taxawee mobile fu mu jëndee un mille un million cinq cent billets jëndee naa fa deux millions billets démb may wax preuve la comprendre buñ jaxase kenn <laughs> foofu laay waxee man mais léegi yéen bi ngeen gisee euh, ñoom moom li muy def neexu leen pourquoi pas ngeen dem ànd ak ñoom Gris Bordeaux boobaa nag dañu gën a ñàkk fayda parce que ñoom Gris Bordeaux suñuy papa lañ Gris xam la lañ war la laa war séga moom man ma am combat fëgg gàllem ñoo ba biir gàllem ne ko Gris mu ne ma waaw ma ne ko nii ak nii ak nii jàpp ci mu yëkkati jàpp ci jox ma mais ñoom Gris Bordeaux ñuy wax naan ay moo jox xaalis musuma dem këram yoru ma numéro téléphone musu ñoo gise bu ma ko séenee stade la mais nañ bàyyi seen caaxaan di génne di xas mbëri ñoom bu ñu xasee mbëri VIP yi ñun bu ñu génnee dal seen kaw mobile nag sama gaañ la man ak moom ma ko kooku safut sax mbër jaaykat kooku lay nduróol ondu la fou moom nee na daal moom nag dafa dof nee na ondu la fou mais ondu la fou bu ñëwee kii laa koy bàyyal kii ko gën a yéeg fuuf waaw xam nga affaire bi lan la man mënuma concevoir benn mbër boo xam ne yàgg Balla Gaye yéen a maase wala nga mag Balla Gaye nga ñëw nga ne da nga bëgg a jiite association jeune lutteur am na loo xam ne dañ koy xalaat yow nga soxarandoog Balla Gaye mu tàq bàyyi la nga soxarandoog Sokh mu tàq bàyyi la nga soxarandoog Siteu mu tàq bàyyi la nga bëgg a ñëw ci keppaaru booy na yow yaay président association fan lañ ko teg. mais da leen mag moo tax. mais mobile gis nga gis nga gis nga nit da ngay gàn sa bopp lu baax mobile xam nga lu mu war a gàn nga roi des arènes gis nga Kona mooy gën a naqari combat si àdduna day day dina léetoo 45 minutes. Kona. promoteur dañ ko mais mais combat mujj bi dafa daan. promoteur dañ ko jépp moo tax bëreetul. non dañ ko aj CNG bee ko aj. dinañ ko gën a ajaat nag parce que man mënuma nga jiite benn association ne da ngay am fooy far damay wéeru si Bougane wala damay wéeru si Sonko fii Macky Sall la fi yàlla teg président CNG bi fi nekk yàlla ko fi teg. promoteurs yi yàgg nañoo xar seen tànk tubay pour booy bëre bu ñu neexoon jël seen xaalis investir leneen mais dañoo jël seen xaalis ji jàppale booy pour ñu bëre booy bu nangu ñu jox la ticket yow la neex man ñaxuma fayda dem si benn promoteur naan la jox ma ticket pour ma bëre fula bu jugee si yow dara di soti nit yow yaay gëm sa boobu balaa ñu lay gëm mënuma nekk mbër ba pare na maay dem sa benn promoteur pour màjjal ko pour bëre xalaatuma ko dangaa yor sa bee su ma amee sama xaalis naa jënd su ma amul sama xaalis ma baay ba ñëw stade ñuy jënd bee jënd bee mais mënuma yow tey nga dal promoteur yi bu subaa nga dal CNG bi gannaaw suuba manager yi gannaaw wàcc suba nga dugg ci biir nguur gi dal leen yow yaay kan te naa mobil lay ndax booy de mobile am na visa États-Unis bu bu nee këtt na jonn day dagg bee dem Kona mënul dem marché caaro yi fii la yam parce <laughs> que Serigne Bamba téere laa lay wax. mais léegi yow démb lan moo tax lan moo xool moo tax nga xool ba mu neex la nga def sa vidéo. waaw jàpp mobile di ko daal sa diggante yéen ak mobile mobile defu leen. mobile defu ma mobile defu ma dara. mais dafa dugg si benn direct ne alliance nee na jamaïcain moo ko jox xaalis pour mu. taxawal benn association. ci groupe waaye man mobile la waaye mobile man mobile ku ma ku ma joxoon cër. non dañoo def loo xam ne daf ma metti Kona dafa woo kii enregistré ko téléphone audio bi di tas ci di tas kii tey jii nii lu leen wax rek ñoom dañuy sampu niil bu ñu sampu niil kii heure bu ñu taxee dem ci yoon ñun seen litre yëpp dañuy taxaw ànd kii yóbbu leen ci yoon ñoom te ma yàlla ñu egg foofu nag dañ ma woo téléphone appel enregistré ko enregistré di ko tas ma woo ne ma dañuy dégg da nga association bees boobu affaire wax ji sax jibagul mhm. ma ko association lan man ko yéen bàyyi da ngeen maa bëgg a def arme di may xeexe man du ma nangu kenn ku may xeexe am na benn mbër bu mag bu ma woo parce que bëggul ma tudd turam. Mhm. pourquoi ngeen nekk si lii ba pare bi si am tànk ginnaaw man ko man lu ma nekk dama koy gëm muy dëggal sam bopp ci li ma nekk. Mhm. kon naa jël vocal boobu enregistrement tas ko dëkk bi am na yoon su ma neexoon xam naa nu may lijjandee sam bopp. mais du ma ko wax dara dama koy bàyyi parce que man mënuma mbër boo xam ne ba nga gëjee bëre léegi daf ne 6 ans nga ñëw fekk booy nday lis njaago di ñoom cekk ndaanaan di bëre alliance di bëre caatu yow musoo ba nga gëjee bëre yàgg na parce que promoteur dañ laa jéppi di nga léetoo vingt cinq minutes balaa ngay bëree boo jàppee mën nga rasu ba génn saako yi fii ba arbitre di tas làmb ji doo bëre nga ñëw bugg a jiite ay booy léegi yéen seen objectif bi ngeen li li tax ngeen créé ko lan moo tax lan lu tax ñu créé ko mooy pour ñun suñ bopp ñun ñu jëmale suñ bopp sa kanam képp kuy bër mu ndaw gis sa bopp est-ce que xam nga ne Sonko bi mu leen waaj a recevoir nii ay trois personnes ci groupe ko yëg bi leen Bougane Gueye recevoir ña demoon mën nañ leen compter te ñi dem xaaj bi duñu dugg ci groupe bi ci groupe bi laa nekkoon. lan nga bëgg a wax foofu. eh luñ def seen poste la ñuy wut ñoom seen bopp lañ fi nekkal nekk luñ fi jeunes de mobile de boppam la fi nekkal Kona boppam la fi nekkal. parce que sëñ Bam ci kanam dinañ xam ne alliance li mu doon wax dëgg la xam nga man duma leen moytu aw ma tànk ginnaaw mais li ma la mun a mooy mobile de am na visa États-Unis booy yéen ñi lang si ginnaawam yéen laay waxal yeewu leen. bu leen topp si benn ginnaaw ponkol boo xam ne moo mag Balla Gaye bugg leen jiite bugg leen utiliser ñoom Kona moom moom Bombardier bu ñu magantee ay deux ans la ñu magantee un an xam naa magam pap capitaine Pape Konaté ñoo bokkoon koñ xam naa magam Pape Diop ñoom ñëpp xam naa leen paala ba muy bëre boobu man suufu baas laay jaar mu bëgg ñëw ne di jiite association jeune leader moom muy pas leader mobile di pas ñoom lu leen desee retraite bëri bëriwul ñu bëgg ñëw fii di sonal nit ñi may leen ñu jaam fii ay Sonko ay Bougane foor fii fii Macky Sall la fi yàlla teg jeex na tax amul leneen fu ngeen neex far leen nag fu ngeen moo woo moo wuy leen je pare prêt pour tout. mbokk yi gis ngeen ko làmb jaa ngi noonu làmb yi fi mu toll nii euh, association yi bari na euh, groupe yi bari na ku ci nekk ngi génn di wax ngàll nag ñun moom lu defar làmb ji doomu luñ bëgg fexe leen ba bu lépp lu ngeen di def wala lépp loo xamante ni da ngeen koy wuti. da ngeen ko teg ci yoon jaarale ko ci yoon saabu bu ci yoon rek ñun ñu am jàmm làmb ju continuer nan ngay wax sa waay. waaw man balaa ma wax saa rek damay ñëwaat ci ci ci jeunes lutteurs yi jeunes lutteurs yi ñun booy ndaw yi lu ko ñoom caatu rëbës ñoom mbañi kay rek sekk ndaanaan caatu ngéwél si boor alliance Balde Liis Ndiago Laurent Ndiago mënuñoo lim gars yëpp a ngi ci group bële képp ku taxaw pour nekk ci groupe bale wool alliance bala nga wooma bala nga woo caatu rëbës koo ci woo di dugg ci groupe boobu ñun nag xeexuñu mobile xeexuñu konaa xeexuñu kenn làmb la xeexal te en dañoo war a jox suñu gëdd ñun ñoo fiy bëree jënd un million billet barke Sëriñ Bamba di loué ay kaar yi kaar yi kaar di yóbbu di sonn ci làmb mbër bu ndaw cent mille lañ koy fay premier kase dafay dafay dañ force mbër bu ndaw dafa dëggal suñu bopp xeex li ñuy xeex di ci woo ñëpp nañu taxawuñu VIP yëpp ñu ngi leen di woo di woo promoteur yi mag yëpp di ci woo ñëpp ñëpp ñëw taxaw ñu ñu xeex li ñuy xeex combattre gagner suñu combat. lan ngay wax sa kàddu mujj. waaw sama kàddu mujj moom mooy dama koy ñaanal wér moom suma waaye la mais nii nii nii nii duñ waayoo fii ba après làmb ji xam naa dañuy waayoo comprendre nga ndax ñoo bokk xeex bi ñuy xeex mënoo leen bokk gox ngeen di bokk xeex bi ngeen xeex ba pare ngeen di def nag su dul noonu.

biñ aj defoon na ci deux deux millions quatre cent quatre vingt neen na bu dee def na ko ci loolu noonu. xolol yàlla ma daan mais bu ko ci defut naa ko daan. dinaa ko daan waaw yow man bu ma bëggee am ci yow maay borom dëkk bi Ousseyn kii dafa naa daf maa xamul. waaw ki mooy ce que man ëpp ma la accès sax ci ci ci moo géet su ma wooyee Xaadim Jaxum ba léegi def ko haut sama iPhone boo génne ma woo ko léegi def ko haut-parleur danaa la kii xam moo géet xamul kii. mala bu gisee ci réseau si démb si guddi yàlla bu ma génn yàlla naa génn oto dërëm mooy doomu ndey titi su fekkee waay doom waay waay kii waay kii dafa neex rek bër dafa neex quoi non non man bugguma man bugguma toog di plateau di tudd ku xamut mbala ku amut naa la du ma man du ma chercher buzz nag am na nuñ koy chercher ku sa buzz mais buzz dafa am nuñ koy chercher man du ma tudd ku man xamul la yow boo bëriwul ak man doo toog fi waxuta dee yow kenn xamul la man li ma toog ci ay plateau kenn daa xam nu mu toll kenn xamul la man li ma toog ci plateau kenn daa xam nu mu kii day xaar waaye kenn xamul la tàggatool waaw moo de la moom mooy damay sant ñëpp rek di leen sant yéen waa wasaare lii rek yombul ñu ñëw ngeen teral ñu gate ñu xam nga yàlla lii nekk télé bi gën a mag ci télé yi amiin caméraman beeg sista yeeg surtout yow Ousin kenn nga ci ci ci ci ci ci gars yi quoi barke alxuraanu karim nag parce que ñin invité nañu fu ne lu ne ñu ngi ñu koy wax lu ne ñu koy def lu ne ñu ngi koy seeg ak gars mais yow mention spéciale di di di di di di sant sama waa koñ jaxaay waa Medina Gunaas Kër Masaar yëmbal buun di sant àdduna di nuyu suma benn waay sele si la kooku suma xarit la seeg nañ lu bari di nuyu suma papa suma yaay suma fami sama grand xame jool bi pari suma turandoo jibi jool bi pari di nuyu waa Denver Colorado ñoom Abu Jool suma frère yi. ñaanal ma leen ñu am jëkkër yàgg nañ lool. waaw kii yàlla na ko caatu rëbës takk. waaw kee yàlla na ko sàkk ndaanaan takk. <laughs> sama ñaari doom ndey bu ñu génnee ci combat yi. sekk yàlla jël kee caatu rëbës jël kii <laughs> te boobaa man maay dem ñaani def takk bi. ah kon waaw di sant ñëpp daal di sant waa Jaxaay di wax nañ ñu jàppale autorité yi nañ ñu jàppale. man du ma balaame Macky Sall barke alxuraan du ma balaame Macky Sall ndax Macky Sall wax nañ ko li ñu koy wax lépp sonn na fu mu ne ngir yàlla nañ ko yombalal liggéey bi bu génnee xaalis bi nañ li ñu ciy war a def surtout waa Kër Massar pénitence bi noonu Camille Bass na si ñëpp jàpp gars yi sonn nañ ci mbënd bi waaye. jaajëf waaw di di waxaat ne association comme association bees bi rek laay delluwaat di wax promoteurs yi yàgg nañoo jàppale mbër yi nañ xam loolu Gaston bi mu fi ñëwee yàggul. Mhm. parce que bàyyi woon na làmb ñu ndaw ñoo fi nekkoon ñoom Jamaïcain ñoom Fallou Ndiaye ñoo fi nekkoon kon mënuñu bàyyi ba Gaston ñëwaat naan Gaston kese moo fi tëggal nit te la jox bee promoteur yàgg na tëgg nit te du ko jox bee te daawul jëpp nañuy nañuy fàttaliku démb ñu xam ne Gaston bi mu gëjee ci làmb yàgg na Pape Abdou Fall bu saison de jot ñaari combat lay tëgg ñett nañ xam ne promoteur yi ndaw yi ñoo fi ne nañ leen di bàyyi xel beneen bi mooy <laughs> sama waa ji moom damaa faan barki sëñ Bamba <laughs> li lii de maa ko waxoon li TV maa ne ko doo siggi xool mu ma ne xanaa danga maa faan tey moom moo ko waxaat fii daf mooy suivre bërëb bi parce que boo déggee ni muy waxee moom 2 millions yi ba léegi doo ko tiital. waaye mooy tiital waaye alliance yow di nga yor 2 millions gars mbër bu ndaw nga. non non di nga yor nga. koy def si combat pour oh, xam nga booy wax ci nga xam ne li ngay wax wóor la day metti moom li muy wax nii fi mu toll nii mënu koo wóor xam nga kañ la koy ma jàllee ci kawam ba jàll te dama koy dóor mu daanu. ah da ngay dóor si boobu mu daanu. dégg ko lu ma la damay dóor si boobu mu daanu bëriwuma ak moom ñëwuma sax pour bëre du yàgg moom déedéet ñëw ma sax pour jàppale noonu dama koy dóor mu daal. gën na maa yombalal lépp non eh gën na maa yombalal lépp. waaw di man damaa xeex ba sama loxo buddeeku. xanaa kookoo xeex dóoragoo kenn mu daan. man damaa xeex ba sama loxo buddeeku nu may dóoree moom ñaata combat la am 14 xaw ma 9. man ma am 2 combat 2. waaw dóoragoo kenn mu daan. 2 combat la am man damaa xeex ba sama loxo buddeeku buddeeku. génn su moom damaa war a sant. dama xeex ba sama loxo génn dem génn làmb ji waaw loolu de am na moom bu defee Serigne Saliou Mbacke su ma bëree moom damaa war a sant. moo tax ma la kii après sama combat man ak moom ay ay loo war a di doon barke Seydou ndax damaa yombalal lépp day yaru rek ma bëre moom. dégg nga day bëgg daw de day bëgg daw de. barke Serigne Saliou. barke alxuraan day bëgg daw. billaahi mi nga daw mi ngi bëgg mi ngi bëgg a ñàkk de. mi ngi bëgg a ñàkk moom su bëree man. waa di lancer dernier message rek kii nu mu tudd Jamaïcain. Jamaïcain Jamaïcain non si Jamaïcain laay wax. Jamaïcain nag geesu mbëri saa yi nee na 2 millions et quelque la ci def man nag li ma ci def man la sama diggante ak yàlla ak sama waa koñ du ma ko wax nañu geesuwaat bu baax am nu mu def ak ñun surtout saa yi nee na 2 millions et quelque la ci def. waaw loolu am na na ci Jamaïcain jàppaat di nuyuwaat l'international promoteur bu mag bi moo gét maa ngi koy siyaare di ko ñaanal yàlla yokk ko defal ko tawféex di nuyu sama xarit sama papa Souleymane Ndéné Ndiaye di ñaanal suma xarit Barissa yàlla defal ko tawféex ak suma waa koñ yëpp rawatina suma mag Ndeye Ndiaye suma yaay maa ngi koy ñaanal mu gudd fan yàgg fi suma papa suma waa famille yëpp maa leen di ñaanal di ñaanal waa Diourbel Ndukumaan maa ngi leen di siyaare di leen ñaanal bu baax yàlla yàggal leen fi xam kilifa gi ak waa kër gi yëpp suñ borom yàggal leen fi di ñaanal waa saalum yàlla defal leen tawféex di ñaanal ñu bi yëpp suñu borom defal leen jàmm. di ñaanal si tey suñ borom may leen ay borom kër yu baax. waaw di ñaanal tamit. waaw wasaare. amiin ñu koy dégg si télé yu mag yi ci bari Seydina Mohamed. di wax ne lu dul jàmm jàmm moo ko gën. yàlla na fi jàmm sax dàkk mbas mi muy nekk yàlla na ko suñu boroom jëlee. ba ñëpp nekkaat seen activité ku ne la nga nekkoon mu xaw a yomb mu xaw a métti yàlla ko suñu borom nooyal ba mu nooy. ku ne looy yootu yàlla na yomb yàlla na yàlla wàcce wér di nuyu gars yi caabi féete ginnaaw. Mhm. di leen wax ne suñu borom bu bindee dara wala bu defee dara rek boo sababloo rek suñu borom mun na la cee génne yàlla na leen suñu borom génne foofu te bañ leen faa delloowaat ñu tëdd si lalu hôpital yàlla na suñu borom fëgg seen bopp. di ñaanal axlu géwél gi mbay si Ndiaye sëñ Mor Ndiaye yàlla dafa leen jàmm lu baree bëri ñaanal senegal yàlla fi jàmm yàgg waaw jërëjëf Serigne Touba. gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo ni ma koy waxee chaque jour ni ko Kumba Gaw la waxee woon laa koy waxee dina neex dina yëngu moo tax gis ngeen gars yi neexal nañ ko te yëngal nañ ko di jox dig daje beneen yoon di jaajëfal sama caméraman ni tey nag euh, Fatou daa def teraanga defe naa defal ne kii waaye ndekki bee des xaalis bi nee naa ko nu koy génnee su ko génnewul dinaa toog ci caméra boo ko génne xaalis jox mbay ñu lekk ba suur naan ba màndi kontaan naa ci yow Adama kàggu maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ak sama maquilleuse bi wala noonu noonu la ñuy wax de maquilleuse kontaan naa ci yow mbenn yoon jox dig ba beneen jërë ngeen jëf